lépp yemb na ngir ñu amal ay campagne électorale yu mucc ayib loolee di ay kàddug du Ba yu mu jagleel directoire campagne am ngir dalal seen xel ci ab ndaje ba mu amaloon ak ñoom candidat wu Benno Bokk Yaakaar bi ñu bëgg ngir mu wuutu fi ki di Macky Sall dal dinay fësal ne bëgg-bëggam mooy fexe rek ba coalition bi jële ndam ci présidentielle yi ñu jëm ànd ci nag ak sénégalais yépp dal di jublu ci delloosiwaat dal ci réew mi taxaw bu baax a baax ci xëyum ndaw ñi naka noonu dimbaliwaat néew ji dole yi loole nag ngir mu antu sàkku na ci ñi nga xam ne ñooy doxal campagne ñu gën a baral jéego yi ci liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy def di ko seq askan wi waaye nag mbébét bi Amadou Ba am mënula antu lu mooy coalition ba mu bokk ñoom ñëpp dañoo ànd di yëkkatendoo di dóorandoo ba tax na nag directoire u campagne daal di sàkku ci seeni naataangoo ñu déggoo su ko defee ñu mën a yeggali seen yéene waxtaan wi nga xam ne nag njiitu réew mi sabab na ko ngir delloo dal ci réew mi waaye itam ñu amal ay élection yu mucc ayib Amadou Ba sàkku na ci directoire u campagne ñu jàpp bu baax a baax ci mbébét boobee ngir mu mën a antu directoire ba nag ñoom taxaw nañu temm ngir wéyal liggéey bi nga xam ne daanaka tàmbali nañ ko ba noppi te muy jokkoo ga ñuy amal ak seeni électeurs di saafonteeg ñoom ngir fexe rek ba seen mbër jëlee ndam ci présidentielles yi ci tur bu njëkk bi loole nag moo xam ci ban app lañuy ñuy amal élection bi ginnaaw ba ñu seqee waxtaan bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall sàkku na ko